loo nekk. est-ce que am. loolu doo relax la moo si la. noo mel ni dama changé xam naa dina am solo tamit. ah ñun ay jigéen lañ. te waruñu nangu ay góor duñu jaxase surtout mel ni mbay te xam naa ne mbay bëgg na la naa jéem supporter rek. Ah, moom sës kay. Euh, lan moo changé si entre xool ni ngeen mel rek ma xam ne moom bëgg a la te yéen a ngi nekk si jàmm ma may leen jàmm ma leen salaam gënul. may suñu jàmm ni gratos daal. wax dëgg neex ma dem xool nekk ci leneen ci beneen ci beneen ci beneen kii yaa am ngeen xam. léegi comme que ñëw nañ foofu noonu mu bëgg xam sa comportement tay lu tax nga doon comporté woo noonu ak. la xam parce que jigéen la normal yaa ngi dégg. mbay man woon nekk ci kër gi naa eh, dama laa bëgg dama laa li jëg saa tourné ko dem si beneen jigéen doo doo doo doo euh, du genre doo ànd sa sago en mais boo demee ba comprendre que ne lii lii la après da ngay bàyyi am sedd te man déjà man may nobbu ma ko woon. léegi war na naan dama naa bëgg kon noboo ko woon non. léegi lu tax si mais beneen waaw boo gisee beneen jigéen sax yow daal jëloo bëggoo kenn jël. waaye nga jóg maa nii dama demee sa jàmm la sa salaam. lu fa laa def la saf ci kër gi. Ah waaw fi ne nii nag moom loo bëgg nee ma lii rek mu def ko. lu la saf yow bu la neexee sax ñëw fanaan sama néeg. mais nañu waxtaan tamit entreprise man lii mënuma a gëm ak lu fi xew lii yëpp temps yëpp. mais attends doomu change. mais si vite. man gis ki sa kaw fi. damay juum damay damay xalaat. kon xam nga ni danga juum. j'ai bien beau damaa réfléchir bu baax avant may def lii. doo xam nga ne jigéen du comporté woon noonu. yow dangaa bëgg yóbbu wax bi feneen wala man jàmm ak salaam laa bëgg bëgguma leneen. Mm. yow amal sa jàmm am ak sa salaam. su la neexee sax yaa ngi may ngeen tëral seen projet mariage xanaa loolu neex na. maa maa koy defar bu bëggee maa la yóbbu ci tailleur yi boo xalaat maa la fay yóbbu bu bëggee bis bu ma bàyyi fenn. xam naa jigéen ñi de loolu mënaguma ko gëm balaa ma koy gëm ba def ci sama bët. man damaa xam ne waxat wala wala ci lu ñàkk fayal sama wax sax bariwul sama dëgg laa nekk. ah mais tout est possible dans la vie hein avec les filles tout est possible. je m'attends ma gëmee baax na su ma ila li xaar ma la wax jàpp ko suma dëgg laay wax man ma waxantu loo wax dëgg la ci man. dinaa si xam dara de toute man tout le temps ñëw si kër gi. xanaa dégg nga bu la neexee nga jël nga diri sa valise ñëw. ci kër loolu. kon yàgg na dinaa la saa teg ko sama loxo ci code laa lay ci programme. mbay sax buy xawee def li daw jël ñëw la. ni ngay wootee añ kii waroon koo fekk ni mu toogee ni koy woowee ni añ ki ba koy woowee añ da nga war a neexal war a neexal kii neexal ko neexal ko nga koy bay bayal woo ko. madame la madame Seck. ah ah dañ ci ma la def añ. kay moom dama neex la saf. maa sa ginnaaw ko kii madame Seck la. sant nañ la wala. dama dugg sama vie. yow moom li fett ma ci yow. maa ngi jëlee. kii de sama xarit la bu lay boo nga jëm ko yaatal ci kër gi ndax lu mu wax looloo fi am. yow kii nekkul kii moo taxoon keroog nga këpp ceeb. oh garaawul àdduna am solo bàyyi naa ci suuf. ay may sa def hors sujet. man kat damaa joomi daba. Ah, Ngoné Mbaye. Ndiim. xaw ma Ndiim commencé sa façon xool yi ngay xool. Mbaye. kii léegi mu nangu kër gi nag kii nangu na ñëpp de presque presque. alaamaani. na yàlla kër gi woote fa añu ci gën a metti. fii ngay di woote ah, fii même da ngaa war di dem di caressé nit ñi dañoo waaye fi nga toog tey sa ndigal koo woote nan nan la nit ñi ñëwee. tëdd na ni madame Seck dafa xiif. toggal caressé la nga xamante ni. pusil nii nga tëj ko pusil bool bi kooku naan ko pusil nii est-ce que bool bi bu saa de. ok. nga mën a sekk nii. teg ci ma ko. am nga ko jëlee ko. am am ko. eh eh eh ba ba nga jox ko bi nga xam. yow yaa eh, yaa wa mënoo bàyyi xale bi yow lii lan la. commencé def waaw lu tax nga def nii xale bi. parce que kii chef bi ci kër gi. Ah, ok suura. o seet bi ci kër nga ma ni ancien militaire yu njëkk ya. ubbi leen lii. ay waay suñu kër gi neex na de. mère Mbaye sa loxo bi rek suuf nag. dangay nay ko dangay jëlee temps yi jël kii. jëluma ko damaa nangu ndogal. ah ndogal. waaw bi na de. da ngay jub de yow yaa ay yow fuy nga de da nga jub de kii dafa xamul boppam kii ni mu bëgg may am ci kër gi nii kii xamul boppam yow yaa baax yow bu sa cent franc bu dem ci lekk bi yaa ngi may dégg kii li mu wax looloo fi am waa kii yaa wala waaw ba bàyyi ma kaani gaa ngi këpp may ma kaani. Eh, xool ko eh. c'est bon c'est bon. léegi léegi léegi dugg la mu ngi may piis. yow ñëpp xam nañ ne seytaane nga de. yoroo eh, da ngay jug de. aywa yéen yéen waaw ok c'est bon c'est bon vas-y c'est bon je laisse tomber. non suur na ngeen waaw lii yëpp yaa ko yóbbee laaj ma la yow da nga seytaane yow yaa am xooñ bi neena réew rek. nga xam ak nga koy jàpp eh, eh, yow. Eh, tegal doo topp yaay. non. kii réew la de. kaa jaaree moom namm la. Quand saa dit ça va finir ça. bàyyi nga ñu ne ñu seytaane yëpp commencé. yow moom ñëpp comprendre la wér. ah lekk kaani yi. lekk lii. Ah. comme na plat bi kay. yow madame Seck bul tooñ nag madame. kan dem ma defaral la ma. yaay dirigé si kër gi da ngaa ànd ak man kay damay def lu ma neex. kaay. yéen a ñëw defal la fee loo lekk. madame. oui bébé. tey dama kontaan nga kontaan naa la expliqué jusque là. foo jëm nii. si biir la ñu dem ma defal la. ma defal la. yow comprendre ay duñ ci sa gémmiñ yow. loolu añoo ba damaa xiif. yow leen ko. Ngoné Mbaye. Ngoné. bay comprendre nga yow ni mu demee situation bi nii ah. baax na yow kaay Mbaye la nii. ah Ngoné Mbaye Ngoné Mbaye. mais même mouchoir la. Ngoné Mbaye. yow kii nañu saaf ñu tey. Maysa loolu tëj sa gémmiñ gi yow. yow munoo may sama jàmm damay añ. mais bàyyi ma yow. fan nga jëm. yow doo bàyyi yow. yow da nga bëgg lekk dëggantaan jaay yow dëggantaan jaay da nga lekk waaw. loolu baax. allo. allo ci loo nekk. ça va maa dama laa xaar ba sonn. ah gis nga de maa ngi nekkoon ci nga boo ñëwee ba ci jàkk Ouest Foire bi ci ginnaaw ne mooy tournée bi. location bi fu nekk rond point boobu noonu. waaw waaw waaw. boo tourné noonu rek nga woo ma wax la immobile bi fu mu nekk. waaw incha allah maa ngi nii di ñëw ci yow. d'accord. Ngoné Mbaye Ngoné Mbaye nga ne moom jeex nga ne ñax fee moom ak torob te siiw di waajal mariage bi rek mariage am génn ba si ay bu ma ko fi defee rek du fee yaa est-ce ni li nga def nii dafa ma soke c'est sa baax gi damaa jaaxal xam nga xam nga jaaxal. ni laa mel naturellement. déedéet dégg ma barki démb yow ak gelu mbay bi ci biir kër gi maa changé maa tëdd waxtaan ak sama njëgënaay dugg sama ruxuma na kan gëm ne man mi damaa war a changé. jikko bi ma amoon mu indiwaat ko nekk sama jaam. xam nga nii laa la xamee lan ngay waaj wax ma à toute sincérité lan moo tax yéen ñaar nii. mais attends xam naa ne mënuma jot ci mbay. yaa <laughs> maa ngi koy wax. da ngaa da maa da maa. waaw waxal rek lan la. pourtant c'est sûr que les gens dama xam ne mag moom matul nekk kay du ko bàyyi mu nekk ak moom. dama soke de li nga def nii yow ak yow ak génn mbay bi. yow si biir kër gi yow. waaw ah, mais may ñëw jàkkaarloo am sa waaw attends may jàkkaarloo ak man ñëw wax ma loolu noonu lalaa si man waaye am na lu la laalu ci ginnaaw nag yow tamit nañu waxante dëgg rek maa ngi yow ay wax làqu ci ginnaaw la na dara laa yow ku la dugg est du dem moom changé naa de sa diggante ak yàlla dara làqu en parlant la mooy doy yow nga may woowi ci biir kër gi lan la te mbaax gu metti gi lu xew yaa. sama bagage bi ñoo nekk di ñëw. bagage ya GP bi. mu jógee Maroc sama bagage. ma robe mariage ba ca ko da ngaa ne. bii robe ma commandé la. sa diggante ak yàlla. nga man mariage bi sax ko ba ko jëndoo pour pour encore wax nga man maa waxoon bismillah bismillah takk maa lay dina robe. xam nga dama laa xam nga da ngaa bëgg ay indo bëgg ay xeetu ay xeetu tàq-tàq. tërëndaan daan tërëndaan. ah génn ci yi nga laa du peccaala nga tegal boobaa xam nga yoo xam mooy eh mariage bi yaa doon la sañse am na kol am na lépp manque yaa ma koy dund manque ñi teg yow mënoo génn saaf si birthday mariage waaw si bind missis bëgguma missis yi ñépp nit ñi di missis mooy madame ba baax na mooy loolu. waaye bëgguma loolu. si def si def moom nu mu sant sa sa nga yaakaar ne dinaa la wax sama sant jëkkër nga bàyyi ba jour ba xam nga da ngaa ngéwale jël sant ba jàpp da de sant eh, tàgg wax toog ne la ca côté ba man ma taxaw di la seetaan. jour ba yàgg doo wax day noppi. kaay ma wax la ko mel kaay ma wan la ko ko wax mi mel kaay la ma waay. bu dul may wax yëpp rek ah lay wax lay wax lay wax kaay wax kaay. bëgguma bàyyi dara xale. li ma la woon noonu lay waajee nii. man man damaa choqué de. ne dama am pare. loolu yow moom bu la fi keneen takkaan xanaa kon day gën a garaaw di. moo foo ne keneen mënoo bàyyi wax keneen. ah dama xam ne paa bu dee bii nga nga def nii. ah dama pare. xalaat naa la ah, mm. xaalis GP bi xam nga mu ngi ñëw. bàyyil su ma lay wax benn affaire li ma lay àbb. c'est que li ma lay àbb bariwul su ma la àbbee rek waroo hésité. c'est yow problème bi mooy temps yi da ngay def loo xamante ni c'est choquant quoi daf may soke yow noo may mën a indilee sëriñ robu mariage DP li ko indi nga àbb ma xaalis loolu mooy. ngoone mu ngi nii mu ngi nii mu ngi nii di ma oowaat. allo waa Ndiaye. waaw yow. da ngaa egsi. agsi naa ci jumaa ji. léegi boo da ngay continuer di gis benn immeuble chaque étage noonu bu am benn groupe si suuf noonu rek boo ñëwee nga wax visite bi nga yëg ci kaw premier étage. ok maa ngi koy seet. d' accord rob bi ñëw na. toog waaye ma kii ñëw na léegi jox mooy danga may jaay rob bi. ñaata bi yow xam nga ñaata la jël ci xaalis yow est ce que yow ngay jox de rob bi presque jar na un million ci li ma ko jëndee. i FM <laughs> ay. dara la jox péri na ci rob bi ay jamaar ñaata la mariage moom xam naa ne boo ko defee ba pare ci réew mi. ay yaa waaye ñaata la jox. ñaata la. vingt mille laa la yor. billaay vingt laa yor. waa léegi jox ma lan laa la joxe trente mille te am looy bañ. yow nga yàbb dong. Eh? lan. yaa wa mooy de jaay nga ma ko. yow bi laa xamoon naa ne. bu jël un million de franc nga jox ma vingt franc nga naan jaay naa la. un million waaw léegi rob bi yow léegi bu ñëwee naa la ko jaay comme yow léegi loolu nga gis. waaw ba tey ma jënd ko rek sama may gu njëkk dina ko jar. wala en ah, parlant yow kii ñett la jox may gu njëkk. mi ngi ñëw. mi ngi ñëw. waaw. yow li nga waaj ni rek mat na ba may gu njëkk di waaw soo ko laajee pour lan la. soo ko laajee pour affaire la. Ah. Fall foo ne. tàngoor noppi. ak mën a dégg yëpp yi ay ay ay bul génne samay fem yow tamit dama la ko woon sa tura damaa choqué di man li nga toog si kër gi di di di miix miixal yëpp pour man sa xel mi yooyu nekku laa naa la de yow de mën ngaa am man damay doy ñeenti jëkkër wuy ma buuru waañ a ngi ci waañ bi nag waaw oh, suppu kànja la togg ah déet suppu kànja kat dañ koo bëgg nag suppu kànja daa neex tubaarikàlla ci loolu nag maa ngi nii si yow ça va ça va ci jàmm ak affaire yi naka suba si ma sonnoo ci yoon bi non du tout du tout ça maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm alhamdulilah ba dara ba dara manqué wu ci non du tout dara manqué wu ci mais diis na sama mbëgg bi nii ça va ah voyage mbaa non du tout sonn ma. Hmm. sonn ma yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. kii jafewul xama. léegi fii hmm. moom mooy loolu. dama ñëw rek gardien bi dama premier la. mais yaa ngi ci jàmm yaa ngi ci nekk fii. Euh, après nga vérifier ndax dama manqué wu ci. d' accord gis daal mooy problème bi mais à part ça. lépp tranquille quoi. alhamdulilah yaa ngi ci jàmm bu baax waaw waaw ça ñeeri baax.

xamul dafa tàng kenn xamul dafa sedd. léegi ñaata laa la waroon ñaata laa la waroon doon. Euh, cent euros ah. cent euros. waaw parce que joxoon nga ma cent euros mu des cent euros. joxoon naa jum. non jum ma. cent euros la. déedéet. ah tamit nag euros moo si desoon mais cent euros. non cent la cent la. ah non cent la bu ñu werante nag yow xam nga yow. boo bëggee dégg dëgg. Ah, am classe comme yow moom. maa ngi ah waaw lii. jarul ah. ah, ah, xool ci sa jongo rek mais sans la woon ci ndox bi ah. franchement kontaan naa trop. que tamit doo bagage noonu. est que ci bagage ak GP bi gënul. si lépp bagage yi la lépp Sénégal fii lépp bagage lañ koy woowee te lii bagage la bagage nga moo tax mën a bagage yi rek. say bagage ñoo la def fi nii. non du tout. li nga jox matul cent euros kay yow ndax mu ngi wax ci bagage rek maa ngi ci yoon ba. amul problème merci beaucoup Ndiaye. waaw ok merci Diaw. mais bagage bi bu la desee nga am problème. salaamaaleykum. waaw mais Maïssa. mais Maysa. yow looy def fii. mais Maysa kii yow la. Ndiaye def fii. non mais foo ne woon. nga xool mais Maysa. mais fan nga nekkoon. mais. yow laa mais man benn femme laa indiloon fii ay bagages. yaa awa léegi GP la. yaa awa. bien sûr mais ana ana xale bi nga këmboon yaa kii Maysa non def fii mais mais fan nga nekkoon boobu ba léegi fan nga nekkoon ak ci loo nekkoon ñëpp di la seet kenn xamul ci loo nekk ak ni nga demee woon sama ma laaj waa dëkk ba. gars lu wax. non mais waa dëkk ba ñëpp dañoo jaaxle yow naka nga mën a xëy ak état bi nga jógee ci dëkk bi xëy rek ne mes kenn gisatu la kenn xamatul ci loo nekk may sa. depuis jour ñoo ànd di wër Moustapha gisuñu ko jour boobu laa la gëj a gis foo duggoon. Ndiaye fii yaaw boobu ngay wax mag moom ñoo bokk kër gi dëkk ak sama beneen xarit non man may sama man je comprends pas yow depuis boobu ba tey ana ëmb bi foo mujjee jaay dara umpulewula sama digganteeg Moustapha dëgg loolu du dëgg loolu wér na ñun ñëpp ñoo bokkandoo woon nekk dëkk ba ma dëkk fa ak samay nawle te bëgguma mukk ñu xëy di ma ree Moustapha tax na ma ba suñu waa kër sama papa wax sama yaay wax ma dëgër ne dama koy topp nekkate kooku du nit ku baax mais yow ak Moustapha dangeen doon génn Njaay dëgg la ak Moustapha dañ doon génn bañaluma ko woon dara musuma woon sax jéem di ko jox sama bopp. naka ngeen def kon ba yow li la dal dal la kon nag tamit may sa wala doom Moustapha mooy bàyyi doom ji. Njaay waaw. Moustapha daf ma violé. non lay wax nii may sa ani xale bi. Njaay Moustapha bi ma violé walla taxaw ne ko yow la mu ne ma carrément du man jóge dëkk ba dem yoonam ndax mission la fi ñëwul. moom dëkku fa man boobu laa ko gëj gis. ba nii may wax ak xaw ma fu mu nekk xaw ma dund na mbaa dee na. xale bi ci lu mu nekk laa bëgg xam man. Moustapha euh, Njaay. xale mënaguma la wax ci lan la nekk parce que bi ma ñëwee fii Dakar taseeg sama benn xarit mu fot ma seen kër ci mbedd bi laa daan fanaan mu gis ma ak état bi ma nekk mu jël ma yóbbu ma seen kër yaayam def ma comme doomam bi mu jur ma nekk ci biir kër gi ba heure wasin jot ma wasin sama doom ma xam ne kër goo xam ne dañ la fa héberger mënoo fa nekk yaa ak sa doom xaw ma nu may def xale bi ma génn dem fu sori jël xale bi teg ko ci mbedd bi. Maysa lan moo la jaral loolu doom alalu yàlla la ni tafaa def dafa mel ni yow noonu nga def ndax moom dafa daw ay responsabilité am yow li nga def dafa mel ni yow it da nga daw say responsabilité fan nga teg xale bi xam nga ko. mënuma la wax fii la xale bi nekk. non mais yow fi nga ko tegoon xam nga ko fu mu toll nii man li ma lay diggal mooy nga fexe doxaat ay tànk wër sa doom man nag. Ndiaye. waaw. Ndiaye. waaw. xam nga lu may beñ mhm. doom ji juddoo sama wet mu xëy di ma laaj an sama papa lu ma koy tontu. waaw nga waslu ci àq. ndax sax moom dina xam ne yaayam def na effort boo xamante ne papaam def ko. Njaay yaay day amal àq doom waaye doom tamit ay amal àq yaay. dëgg la waaye ni nga def nii danga koy ameel àq li ma lay digal mooy man dinaa la dimbale. Njaay amelu ma ko àq. déglu rek may sax nañ waxtaan doom alalu yàlla la yaa ngi gis xale yi nekk ci mbedd bi li ñuy dund amuñu yaay. amuñu papa kee sax papaam bañ na ko waaye yaayam bu ko nangoon xëñ na dina ci am benn nañ fexe nu ñu mënti def ba waraat sa doom jooju nga téye ko mu am sax yaay ndax Moustapha ñun xamuñu ko moom mission rek la fa ñëwoon boobu ba léegi déggaatoo ko xamoo ci lu mu nekk yow sa biir wax maa ngi dégg nga naan dafa am sa benn xarit bi la fatoon lan moo la jëlee foofu noonu. Ndiaye sama xarit boobu ma faj seen kër ba ma wasinee dem seen kër yaayam ni ma an sa doom ni ko xale bi dafa dellu gëmuma mu xam ne dama sànni xale bi mu ne ma carrément ndegam sànni nga xale bi sama kër doo fi toog. ndax duma yor koo nga xam ne jigéen bu bon la lay sànni doom ni ma lu metti metti mënoon nga ko téye mais ñoom bu nekkoon sama position dinañ d'accord ak man fii nga nekk nii fii fan la Njaay ba ma génnee kër gi ma dellu ca la ma jóge fañ ma foree ca mbedd ma ma delluwaat ci mbedd mi ba tey xëy am fii ma nekk. Maysa li ma lay digal mooy sa doom sa doom la fi nga ko mujjoon a teg xam nga ko fii nag man maa fii sa góor nañ def lépp ngir fexe naka ngay gisaatee sa doom yor ko. leneen lu ñuy seetaat ñu soog koy seetaat man lépp lu ma mën dinaa ko def ci jàppale la ngir nga gisaat sa doom te tamit àdduna amul solo doom alalu alal la Njaay bu ma sañoon saa su ma gertoo gis sama doom waaye nii la ko yàlla tuddee Njaay loo ma mën jàppale nga jàppale ma ko ma indiwaat sama doom mu toog sama wet naam gisul baayam waaye bu gersoo gis yaayam ndax joom ju nekk doom joo gis ndeyam lay ndamoon te ñaanuma yàlla mukk mu màgg ci yeneen loxo tekk fi lenn mooy wëraat di daw ci ginnaawam su boobaa loolu defet lay doon ci man gis nañ ko fi ba tàyyi ñiy jël seeni doom di sànni tey xale yooyu rekk a fi tekki doon fi leen ci dëkk bi ana seeni waajur ñu ngi toppaat seen ginnaaw ki tekki waaye lii nag liñ jàngat mooy ñii ñëw ci mission ci dëkk yi ñoo xamante ne xamuñu leen kenn xamul seen papa kenn xamul seen yaay yéen ndaw yu jigéen ñu mel ne yow